kaza nekk noonu cheikhahu sëriñam bi duna ray biñ ci dudul benn sikk sëriñ ci fayda bi muy cheikh ibrahima radiyallaahu ci tariqa bi mooy cheikh tijaani ci lislaam mooy yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam yeneen yëpp dañoo dox sa digganteeg ñooñu rek muqaddami baay yëpp dañoo dox sa digganteeg baay waaye sëriñ ba dëgg-dëgg baay ra qadami tariqa bi yëpp ñoo dox sa diggante ak Cheikh Tidiane yi waaye kay sëriñ ba dëgg-dëgg Cheikh Tidiane la boroom xam-xam yi boroom mazahib yi kilifa yëpp dañoo dox sa diggante ak yonent bi ci lislaam waaye sëriñ ba dëgg yonentu la booy werde nag da nga teewlu jëmmi bàyyi ndax moom mooy sëriñ bi la yar ba nga xegg ci yàlla man ha ah, anta wa rabbuka yaa ngi nii sa borom nga nii boo teeloo jëmmi bàyyi bàyyi xolam du tàqalikoo xolu Cheikh Tidiane ba mukk kon tëbb bi dana <clears throat> jugee ci Cheikh Tidiane xeeg si ci yow waaye Cheikh Tidiane xolam du tàqalikoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi xolam du tàqalikoo jëmmi borom ba toujours mu ngi jàkkaarloog yàlla loola waral boo te booy wér de teewlu ñooñu may yi day jógee ci pay yàlla bi jaar ci pay yonent bi mu jaar ci pay Cheikh Tidiane mu jaar ci pay Cheikh Ibrahima ñëw ci yow waaw noonu la bu la neexee it mën ngaa teewlu sëriñ bi nga xam ne moo la tarbiya ndax kooku bu dee ci fayda baay rek la bu dee ci tariqa Cheikh Tidiane rek la sëriñ boobu nag xorom toujours dafay jokk ci xolu sëriñam kooku xo xorom jokk ci xolu sëriñam ba egg si si baay noonu lay continuer beeg Cheikh Tidiane noonu lay continuer ba ci yonent bi yonent bi xolam du jàkkalikoo du tàqalikoo xolu borom bi subhanahu wa taala moo tax li gën a gàtt mooy nga teewlu Baay Ñas radiyallahu anhu wardaahu mën ngaa teewlu sa sëriñ mm, dégg nga ndax xolu taalibe toujours day jokkaloo xolu seriñam noonu la continuer ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi xolam du tàqalikoo jëmmi boromam مستحضر ان نغتي اولوك شيخ قصة سرين ام ربي بعد يارلا كذاك نكون الشيخ وسرين بدون ريب جرسك ولازم نغتي قو الحضور التاولو ما يسقل بي نغتي اول شي جمعنا بني ذكر دي فاتلكو معنا عباتي ديكو ديكو باي خل دي تي دوخ دي تي خاطر سبيل ذكر بي وسكون الدل نغتي دل توب بين براس Euh, sa xol bi ak sa xel meeg yëpp nga def ko ci li ngay jikkar kazaka naka noonu xalwatan ak wéet tuayinu dina dimbalee xëy nan ak jamono naka noonu it na nga wéet léegi jamono bi ngay jikkar nga nekk yow kese ndax wéet dafay tax nit ki xelam nekk ci yàlla boo jàkkaarloog nit ñi dañu yëg rek ngay yëg sa xol dafay aju ci feeñuwaay fi mbir di feeñee waaye du aju ci dëgg-dëgg mbir yi ki nga xam ni mooy feeñal mbir yi ndax dangaa jaxasoog amatu naa si mbooloom nit ñi te ni ñi bari zaahir rek ci lañuy la ñuy xool moom lañ gis loolu waral nag ñu bëgg nga wéet ndax boo wéetee xol bi dafay tourné yëg borom bi subhanahu wa taala si ngay mën a am teewlu ba mën a xalaat ci mbir yàlla yi mën a xalaat ci bakkan ak ni mëna a mëna mën xalaat ci àddina ak ni mu nàkkee solo mëna a xalaat ci nak ngay def ba mucc ci gàkk-gàkk bakkan yi kon del wéet dana la dimbali sa dox jëm ci yàlla eh, wax nañ ne tariqa ponk yi nga xam ne mënul ñàkk ci taalibe bi soobu ci tariqa ñeent la benn bi mooy wéet mënu ñàkk léeg-léeg nga wéet rek la sa bopp jàngataat mbir yi xoolaat sa digganteeg sa boroom xool diggante jaam bi ak yàlla naka noonu noppi kooku mënu ñàkk lu bari ci ku bëgg a soobu ci yoonu tariqa xiif bu mu ëpp nag waaye léeg-léeg nga xiifal sa bopp léeg-léeg nga foog mooy ñàkk nelaw guddi yii ci la ponkal ñëpp nekk ay ponkal watlub sàkkul murabbiyan raatikat xabiiran bi aji xam biir ak bit maanaam xam sharia كم حقيقة ناصحا بأجل لا يبير jaam bi kaamil irfaani bu mat xam yàlla imaaman ji saalihan bu baax booy tarbiya tànnal sa sëriñ njëkk ndax tànn moo njëkk xandoo boo tànnee ba sëriñ bi doy la nga door a xandoog moom sëriñ bi nga tànn nag bàyyi ne na xam zaahir xam baatin mooy na xam sharia xam xaqiqa dégg nekk sëriñ boo xam ne it dana la laahi biir laahi biir jàngoon nañ ci gannaaw mooy li muy jëflante yooyu yëpp sa njëriñ rek la ci xool waaye xoolu ci benn intérêt bëgg rek nga nekk ku mat ku kawe kuñ xam ci péeb yàlla ba sëriñ bu mel noonu na nga ko wut sëriñ boo xam ne dundee wut la waaye dafay dundal lislaam ci yow wutal sëriñ boobu sëriñ bu xam bu mat xam yàlla nga xam ne ni xam na boromam xam gu mat sëkk tarbiya na la mu war a dox ci sayru yëpp dox na ko xam na yàlla ci dégg nga xolam waaye xam yàlla gi feeñ na ci ay jëfam ak jikoom mu ngi koy dund daal ndax bu fekkee xam nga sa borom mën wax lu bari ci xam-xami marifa waaye nag boo jëflante mel ni ab jaahil yow bu dee dàq nga xëyru it dàq ko xëyriyatu xëyru mooy leneen lu dul yàlla ngay effacé ko xëyriyatu nag mooy nga bañ def lenn loo xam ne dafay niroog jëfi ku réer xam yàlla ba pare <coughs> di jëf-jëfi ku xamul yàlla kooku bu ne dàq na lu dul yàlla it feeñu ci jikkoom feeñu ci doxalinam sëriñ bu xam yàlla nag mooy ku dàq leneen lu dul yàlla waaye nag di ko dund dundu yàlla rek ku tal kooku nekk koo xam ne imaam la maanaam muqaddamal nañ ko waaye bu nekk ko samp mbiri boo xam rek ndax ko xamul sëriñ seytaane di sa sëriñ wala waral nit dafa war a am muqaddam bu dégg bu ko ijaazaal may ko ndigal mu yare nga door a dem ci moom yaru ci loxoom waaw waaye bu mu doon ku euh, fittandiku rek te moom sëriñ la rek nga jox ko sa bopp nga nekk ku baax koo xam ne ni jikkoy charia yi gis nga ko mu di ko jëfe mu ngi wax lu baax di def lu baax di jëflante nit ñi jëflante bu baax duggut ci loxoor duggut ci musiba duggut ci caaxaan sëriñ boobu la bàyyi wax nga tànn ko mooy ku ku mat dëgg ku baax ku sell utal kooku dégg nga kooku nag boo dëggoo rek yàlla wan la ko boo dëggoo ci wut ko rek euh, gis ko سواء مسلين بوب لا رب بان ملكو نكم مؤمنكم مملو نفسك سبب فلا تبدر فلا تدبر بول ستنتل وكن نكل كميتين كم نيو دوام انت تخو تخبر دفن لقمل بو عمي سرين بوبو جوكو سبب بول قولتنك ايبم نفتار بيدو قول ايب سرينم ولف صرفه وحن لو قول تنير رك لو loolu la yàlla wan ci moom boo seetlu lu bon ci moom it yàlla wan la loolu rek ci moom kon bu fekkee yàlla boo leen ak sëriñ nga jox ko sa bopp jeex na gëmmal bul setantari mukk ay ñaaw-ñaaw bul ko gëstu ndax ku mel noon yàlla dana ko ayib ci nit ñëpp du gis kenn muy ku mat su boobaa mu halku noon yonentu daan wax ne ko wax ne ñëpp halku nañ rek xamal ne moo leen gën a halku ndax ñu baax ni saa su nekk ñu si kaw suuf kon boo demee ba yow gisatoo mbaax ci kenn sa xol moo ci dem xoolaatal sa bopp joxal sa bopp sëriñ bi bul xool ci ay ayibam ndax taalibe du xool ayibu sëriñam manqué manqué yi feeñ ci sëriñ bi sax bu fekkee am na ca teewu ko nekk nit ku baax rek ndax nit ku baax du mooy koo xam ne lépp mooy mat waaye mooy ki yàlla tànn yàlla mën naa tànn nit nag fekk teewul am na ay côté yu manqué na nga mel ni néew rek ndax néew buñ koy sangu du yëngatu du wax du wax ne nii lañ may fii lañ may jaarle fii duñ ma fa jaarle yow it sëriñ bul critique dara ci moom gërëmal léppam rek soo ko defee yàlla dana dimbale dégg nga ndax sufiyanke dañoo bëgg rek yar bi nga xam ne nii yaa ngi koy am ak sa sëriñ mu xéegee la ci nga xam kook mm, baay mu xéegale ci nga xam kook Cheikh Tijaani mu xéegale ci nga xam kook yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu xéegale ci nga xam kook yàlla ndax jëbi zahir yi ngay gis même ci sharia jubluwuñ ci dara lu may mu jeexat ci sa baatin nga di ko jëfee loola war a julli ñëpp du jublu kaaba ga bu ñuy julli dafa ay nama tooloo fa sama wajullaahi fu ngeen mën a jublu rek foofu jëmm yàlla jàng fa waaye bu jubloo benn barab muy kaaba ga dañoo bëgg loolu jeexit ci xol yi ba nga xam ne yow borom bi subhanahu wa taala rek ngay jublu ci sa lépp loolu moo waral ñu jublu benn barab naka noonu yonent wax na leen da ngeen xemale sàpp yi bu ngeen ko féewalee yàlla féewale xol yi kon sàpp yi yemoo ci julli gi mën naa jeexit ci xol yi ba nga xam ne xol yi dañuy jubboo waaye sàpp yu dëng yi mën naa féewale xol yi ba xol yi dëngoo loolu dana la jàngal ne jëf yi feeñ daf lay tàggat ba xeggale la ci jëfi baatin yi waaw loolu it lislaam juróomi ponk la boo si saxee rek rafetal ko bu yàggee mu labal la ci juróomi maqaamaa yi xadaraat yooyu rek la jëfi zahir yi pour xëcc la jëmee la ci baatin bi la yow it teggin gi nga xamook sa sëriñ daf lay xeegale rek ci teggin ak sa borom loolu waral bëgguñ ku jaxase ay sëriñ jàpp fii tey suba nga bàyyi dem fële kooku du xam benn jubluwaay mukk waaye boo jàppee si benn sëriñ doyloo ko rek bu yàggee nga doyloo benn borom muy subhanahu wa taala boo amee teggin ba doo critique sëriñ bi ci dara bu yàggee nga am teggin sa borom ba dootu ko critique ci dara loolu rek la waaye ku miin critique sëriñam bu yàggee mu critique yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu yàggee mu critique sa alquran bu yàggee mu critique borom bi subhanahu wa taala lu tax yàlla def lii te loolu nag mooy doy xalkaande walaatu xaarifu bu wuteeg sëriñ bi wala bu baana di leer na fasaadoo ay yàqu gisam fa ku nekkal dawaa mën ci taqoo te di borom ak roy sam jamono bu nekk rek del roy sëriñ bi bu moom di leen xalaatam dafa niru ak njuumte ndax ku xamut mën naa critique dara fekk loolu muy critique njub la waaye moom moo rek bu defee ci réeram nag la gisee ak mat mu mel ni manqué mm, xale mën naa critiquer mag fekk wallaay moom moo gàtt xel waaye bu demee ba yegg fa mag ma xegg dootoo ko critique du ko weddeeti mukk waaw moom la sama waajur waxoon benn jour ma ku ko benn masala mu ma am na loo xam ne xegg xam la fekk yeggoo ci rek <laughs> mën a koo xam waaye boo ci xeggul nag mën naa ñaaw ak waaye boo ci xeggee gis ne ndekk njub la loolu la xadiri mm, mm, doon waree moog Moussa Moussa critiqué na ko ci fekk gaali jàmbur mu toj ko mm, ndax foofu la xam-xami Moussa euh, feeñee <coughs> loolu la ci gis moom waaye dëgg-dëgg xadiri tojut gaal waaye dafa dimbale ay miskin ndax bu tuji woon gaal googu ñu nangu ko su defee yow it sa diggante sëriñ bi jàppee ko noonu rek soo ko jàppee noonu incha allah rabbi yàlla du la seetaan mukk شنغ دغ مديلا مديلا حالك هذا يريد الإسلام واستعنت ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه ونيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته